Sané mm-hmm. personne ne comprend manifestation interdite mu dem fa ay recours cour suprême ba aujourd'hui il décrète le mandat de dépôt mandat de pour lan dafa ndànk xam nga parfois aussi ñun yi dañuy dégg mbir duñu jéem a xam la ca ne non du dégg mbir moi je me suis entretenu avec l'intéressé non non tu t'es entretenu mais li ko neex li mu la bëgg a wax da lay wax xam nga ban dossier le ak gendarmerie wala juge ba mais nañu informer citoyen ñoom ñu ngi naan xaw ma ci manifestation yi dafa non nañu du ma ko sax wax parce que ñoom génnewuñu ko mais nañu informer citoyen justement mais non xam nga euh, da ngeen doo ko wax parce que wax ko arrangé wu la non non non pas arrangé ma pas arrangé wu ma quand la justice ne communique pas mhm. man aw ma dam ci ci source yi ko journaliste jëlee laa ko donc mënu ko assumer xam nga bu fekkee da xam bu journaliste mënu ma ko assumer ko assumer kon aussi bul assumer ni deful dara non waxuma deful dara. non no no non ci fee yi ñu présenté non fee yi ñu présenté. non fee gisuñu lu fi mandat de dépôt di wut. fee yi nga xam ne dégg nga ko wala yi mu la wax wala fee yi nga xam ne buggoo ko tudd justifié na mandat de dépôt. Euh, gis nga liñ ko kii dama koo dama koo yoratul sous la main la dernière fois. Euh, affaire manifestation la. non non waxuñu fi insurrection waxuñu fi complot. Euh, waxuñu fi dara ban motif lañ ko inculpé. motif bi attends je vais te le sortir la dernière fois je l'ai plus à en tête mais ay mbirum manifestation la. waxuñu fi li liñ nekk di rumandaat naan euh, dafa jox ay xale ñu taal ak. dafa jox ay xale ñu lakk dañuy joxe ay xale loolu du nekk ci inculpation. da ngay dikk da ngay viser benn infraction. fee yi nag nekk ci ginnaaw. fee yooyu man xaw ma ko wax dëgg yàlla ah xam nga euh, Aliou Sané dëgg-dëgg bu dee lu koy sauver man kenn waruma ci jiitu ndax ba mu nekkee étudiant laa ko jël sama rédaction muy liggéey ak man ba mu pare formation ma employé ko ba mu dugg ci Y'en a dem defi leneen am na lu ñu seq ci teraanga ak kóllëre kon bu koy défendre war naa ko mën a défendre mais aussi bu may défendre damay défendre lu ma xam gis nga fi ba tey ñu ni diw defut dara ñu gis mu def leneen